وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعض ينبك جلدي نغلين دي نيوب الإسلام نيوب الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنا لو خم جنن لو نكون دي فير سارو ووي سوره الفاتحه خم عجب جويسو يصنع نوشير بسم الله وخلنا بسم الله دفع أم نياري عبادة يتنك وأم نياري خيتي جامو يالله يبقل ينك بسم الله دمنا بموي باو الاستعانة ولا الاستعانة بالله لولو عبادة له شاكو نمبل فساكو قتيا الله دون بجدس موي ذكر الله tudd turu yàlla yooyu ñaari ibaada ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci bismillah ibaada gu jëkk ji te mooy al istiaanatu wala baawul istiaana te mooy sàkku ndimbal te ko ci yàlla dong dañoo xalaatoon ko ba ci kanam ginnaaw dafa am ci biir saar wi suñu wax wa iyyaka nastain ci yow ndimbal وإياك نستعير لم أنبعك لبعض البسمة الأنب يبقى ما تخنا بقول لبعض البسمة الأنب ما بايك وبين أكتو وإياك نستعير إن شاء الله تعالى إذن الله دفع التوفيق ما ينسك أكثر لجم نكتي ذكر الله ما وخم ننتي وخم ننتي ذكر الله وأسف للنيو تأنزر جم آه، بقولنا الإثم ما مثل كنت نتي وأسلفت أي برد يا خرنا lépp looy def rek war ngaa wax bismillah waaye nag ay barab yoo xam ne bismillah dafaa gën a seddliku parce que bëggoon nañ ci andi aslëf waaye danoo bëggoon lool tam lu ne la may fekke ak xel ak tawfiq ñu yéexe ko ba sa mujj yàlla ñu ci yàlla dimbali kon nag tey dañuy continuer insha allahu taala ci saar yi ci fi di saar yi. وعندما نتأمل في السورة فإننا نجد أنها بدأت بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي هاتين الآيتين الشريفتين نجد بعض أسماء الله الحسنى ننو بگتا انشاءاللہ سری وائے ساری وائے بدن کو سری را بگدرس بن تحليل بندو si ñaar wala ñaari aay yi بول bool boole ak nga si benn taxliil wala benn analyse bu ndaw buñ ci war a seetlu door a tàmbali firi bi taxliil bi mooy boo dee jàng fatiha da ngay gis ne mi ngi tàmbalee ci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim loolu moo tàmbali fatiha ci ñu wax ne bismillah bi bokku ci am na ñu ne ah kay loolu weesu woon nañ ko waaye alhamdulilah rabbil alamin arrahman arrahim boo ko seetloo dafa jëkk a indi turu sa borom yàlla wu gën a mag ci ay turam suñu borom yàlla am na ay tur waaye allah mooy wuti mooy alamu zaat al muqaddasa moom andi na ko andi itam yeneen ñaari tur yu bokk ci ay turam muy arrahman arrahim وذلك إشارة إلى نوع من أنواع التوحيد يسمى توحيد الذات والصفات والأسماء وهو توحيد المعرفة. بفكر بفكر بفكر saar yi dafa tàmbalee ci indi ba pour xamale ne ak suñu borom yàlla dafa dafa jëfandikoo baatu allah nga xam ne mooy tur wa alam alamu zaat al muqaddasa mooy allah mu indi ko teg ci yeneen ñaari tur samay mooy arrahman rahim kon dafa mel ne indi nañ ñetti turu yàlla foofu saa yu dafay ëmb ni yàlla dafa am ay tur yu bari am na ay tur ak ci melokaan yu bari yéen mbokki jullit yi déglu na ngeen xam ne borom yàlla du benn tur la am wala ñaar waaye ay tur ak ci melokaan yu bari la am bu ko defee kon jàng tur yooyu ak melokaan yooyu xam-xam boobu moo tudd tawxidu azzaati wa sifaati wal asma tawxid jooju la la la fatixa jëkk ëmb tawxidu azzaati wa sifaati wal asma ñu koy tudde tawxidu maarifa ndax war gus war a xam ni yàlla dafa am ay tur am ay melokaan mu ngoog tur yooyu yow mu ko xam te gëm ko farata ci jullit bu ne wala dox yow mu ta xam la nga ca mën a xam wala alal aqal nga xam dox yàlla am na ay tur te suñu itam nga jéem caa xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy xam mem loo xam ni ci xadis boo xam ne bi buxaari ak muslim kenn ku nekk solo na ko mu jóge ci abu hurayra radiallahu anhu yonent yàlla muhammad wax ne sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi tisatan wa tisaina isman man axsaaha daxala aljanna yonent bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yoo xam ne ku leen ixsa da nga dugg aljanna waaw léegi nag borom xam-xam yi nan la ñu firee ku leen ixsa ndax may ku leen mokkal rek man leen a lim déedéet su mokkal leen rek man leen a lim waaye loolu buñ si bëggee dugg day gudd te taxu noo jóg li mu tax a jóg rek mooy fatiha li mu jëkk a ëmb موي توحيد جوجي توحيد المعرفة ولا توحيد الذات والصفات والأسماء مومل جندتي نكتي تولي اللي يمجك اللي موي الله الرحمن الرحيم تولي يوي نك نخانا موي تولي سابر يالا أم أكملا كان يوي بكن يا كان مسنا كو wala nga dugg ci ak say bidaa bidaa yee gën a bari léegi ci yooyu tawqiif yee la saa borom yàlla moo ko wutal boppam saa borom yàlla ay turam ak i melokaanam moo nu ko waxal boppam ci alquran ak ci lammiñu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ay ahadis ku ko bëgg a xam fa mu ko wax ci alquran ngay dem wala fa ko yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ngay dem bépp turu yàlla bu nit jëfandikoo wax ne turu yàlla la te boo demee ci alquranul karim doo ko fa fekk boo demee ci waxi sayyidul mursalin sallallahu alayhi wa sallam doo ko fa fekk moo ko tudde turu yàlla waaye du turu yàlla waaw yàlla ay turam kenn du ko fental moo ko wutal boppam leeral ko ay melokaan nan sam kenn du ko ci dollil dara kenn du ko ci wàññi dara moo ko wutal boppam leeral ko tur yooyu ak aaya yooyu تسارون البيت في بشارع القرآن ورميت سورة الإخلاص مثلا قل هو الله أحد لا ليون أسلس أي كرم أكي كانم آية الكرسي الله لا إله إلا هو ولنا أسلس أي كرم أكي كانم لدمنا مجب سورة الحاكم لو أنزلنا هذا القرآن بلا يجيه بسارو يجيه ولنا أسلس أي كرم أكي كانم يالدن سورة الحديث ولنا أسلس أي كرم أكي كانم ak yeneen place yu bare bare bare ci alquran kon boo ku bëgg xam suñu yàlla yooyu ak melokaan yooyu da ngay dem nga jàngi ko ci alquran waaye nag doo fent am na ay turu yàlla yu ñuy fent am na noo xam ni ñu ci jullit ñi dañuy fent bopp yoo xam ne yeneen turu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamu waaye turu yooyu tamit ku ci dem di ko jëfandikoo ba dox fekk ca yaa ko yaa ko def sa bopp ñaar yëf yi benn bu ci nekk mataa moytu wutal yàlla ay tur yoo xam ne doo ko fekk ci alquran doo ko fekk ci sunna dof ca la fekk baax jóg di wër rek te dootoo mën a am dara ca la baax ba ca des mooy tur yi ngay jëfandikoo sax tur yàlla la waaye ni nga koy jëfandikoo daa bukkuta na ko Seydina Muhammad jàngalee woon loolu lépp ay musiba dong lay indi li nu mën a jëriñ ci yàlla li nu mën a jëriñ ci lislaam mooy al ittibaa moy top sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bok ku bëgg xam tur yoyu delul ci alquran ku bëgg xam xam lokan yoyu delul ci alquran wala ci waxe sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله هو الرب bu ma xoolee Faatiha nag daanu gis ni bi muy ubbeeku maanaam bi muy tàmbali bi ñu xamale ak suñu boroom dafa jëfandikoo ay tur ñeent ñeent wala ñett bu neexee ne ñeent bu la ne ñetti tur yoo xam ne mboolem asmaullahi alxusna dañ ciy jëltuwaat ci tur yooyu mu ngo yooyu mooy allah arrahman الرحيم أك الرب نين تتوني لك نون فاتحه الله الرحمن الرحيم الرب نين تتوني لك نون شفاتها موغيو نين تتورنك نين مدارو مولم سوريا اللي يتجه أك شفاتي أه. am na loo xam ne war nañ koo seetlu bu baax ci saaru fatiha moo di ne bi mu ëndee lafdul jalaal muy allah muy mooy mooy alamu zaatul muqaddasa yeneen tur yi mu indi yépp ay tur la yoo xam ne day wane yërmande yépp tur yërmande la tur yërmande la tasrixan wala dimnan aha الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم يدخلوا دابا بغ نيو نو اند سيتلو فاتحه ني مو تامبل نو سيتلو تا سيتنتل لي نك تينغال بينو اي نو سي فاتحه ak limu ëmb ci yeen mën la فاتحه buñ koy jàng dañuy tàmbalee ci bismillahi arrahmani arrahim teg ci yaay benuk aay bi tamay alhamdulillahi rabbil alamin sagaat ci arrahman arrahim waaw mbokki jigi seetlu leen yërmande ñaata yoon la ñëw ci ñetti aaya yooyu bi mu waxee bismillah allah mooy turu wi tax nu xam ne fii suñu borom yàlla li ñuy bëgg a wax ci moom la aju bu ñu koy wutal af yeneen tur ci topp dafa jëfandikoo arrahman arrahim indi benn aaya indi waat arrahman arrahim te arrahman arrahim benn bu ci nekk tur yërmande la arrahman mooy lan arrahim mooy lan ndax arrahman mooy borom yërmande ju bari ji arrahim comme na ko noona wala arrahman mooy ki yërëm mboolem mbindaa fan yi arrahim mooy ki yërëm na ko soob ci àllaaxira يعني يا رب والدين يرم في الدنيا في الآخرة ولا الرحمن ما يكي يرم كي من يرم من يمجي الرحيم كي كي كي كي جه خيول يسوي لو لب لكنك أي بارين خم خواني كوارك ما نني لب دم لما الرحمن ما من يجي تسرح مدي في يرم الرحيم من يجي تجي رحم مدي في يرم ما بقول يرم شكله رحمن رحيم نمني النار يوم تيجي جنت بقاط كي بسم الله الكتاب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللواء الرحمن الرحيم آه. ونلاحظ ايضا ان الايه الفاصله بين المسجد حيث الحمد لله رب العالمين نحن موضح دجنتي يا رحمن الرحيم رحمن الرحيم ليون يرمي الليالي بسم الله اكي آيين يارجي آية فاتحة سند جنت الحمد لله رب العالمين موسنا توفيقم يرمل دفينة ضمنا نحن الحمد موي أكتن الحمد لله رب العالمين من ياري بدا دفنا خملني سنت لب يلا كموب بنا فيتم دفني وو ne kon bok nanu sant yalla sant kay boko degge amna lu def lu xewale lu من على سنت الخيول دي لش دف لو خيول لو باخ تي يرمن لا كون نك الحمد لله امنا يرمن لي صابرم يالا دنن لاخ تي دو دفال اي خيول بجنوكو وان بجنوكو سنت لو خيول يوي يرمن موتا مو دفال نكو رب العالمين رب العالمين الحمد لله مول مول الخير كان لله سخنا يالا رب العالمين مومي baatu rab bu ñu ko bëggee ci lu ñuy wax dana jafe te day wax moom mi borom mi laa ko nii kon firi ñu du du baax ndax dana am lu mu andi ci baat bi ak lu mu andiwul waaye li muy jëkk a wane balaa loolu damay wane ne baatu rab bu saa borom yàlla baat boobu mu tànn bu fi tegoon beneen baat ba demee ne ilahul alamin du fee mu jub bu yàlla waxoon alhamdulilahi ilahul alamin mooy ak cant sax na ñeel yàlla bi nga xam ne mooy yàlla mi laa ko nii yëpp bu jëfandikoon foofu baatu ilah واحد جنة جب مجفل يكو وفف باتو خالق الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق العالمين مجفل يكو وفف باتو خالق جنة جب مجفل يكو وفف باتو ملك العالمين جنة جب واي مباي بات يويب باي موالم اسماء الله الحسنى بمدس رب تن المرب نتح رب عمنا سكر بنفوف رب آه، خالق دفع جاجي اك مربي rabbu ak murabbi boo leen xoolee xam ne ñoo bokk maam rabbu raa ak baa la murabbi miim la ak raa ak baa ak yaa kon kenn fu ci nekk raa ak baa mooy mooy araf yu ñuy araf yu yenu baat bi te murabbi ñaari maanaa yi mu am boo ko ci firee rek muy yërmande ndax murabbi mën nañ koo firee kuy yar ay jur murabbi al mawashi ولا مربي الدواجي كير الجو ولا كلن دي سام بمعنى كلن دي جوخ نيولك من دي دير الخر دير الخر موي دي لن موسل غوي دي موسل نيبي دي موسل راكال دي لن جوخ نيولك بسور دي نان دو ماندي دي لن سان دي فيبري بو فاجيل خامني نا لولو موي اك توپ كو شخه با فني نيك تام دي شيت لولو موي اك توپ كو كون مربي دي تري كوي توپ bu la neexee tam nga jëfandikoo murabbi ci wàllu murabbil awlaad murabbil awlaad mooy kuy yar ay gone yar ay gone mooy lan mooy set melokaan yi nga xam ne bu ni gone yi melee jëf yi nga xam ne bu ko gone yi jëfee day tax ñu am dund gu sell gu tee gu neex ci seenu ndaw ak bu ñu màggee nga di leen ko sant di leen ko xemmem loo te itam da ngay xool jëf yi nga xam ne buñ ko jëfee ak melokaan yi nga xam ne buñ ko melee dalen di andi dund gu nakari ci buñu magge lolu ben bu ci nek mo rabbi mën na koo sëy kon bok rabbu bu andu yoy yooyu no bàyyi nabat nangi wal ci rabb ak secret bi nek ci lafzul jalal alhamdulillah ñu indi ko sifatu rabbil alamin بدل خالق العالمين ولا مالك العالمين ولا ولا ولا, ولا اله العالمين ينون ربه Euh, dafa ëmb ay yërmande yu bari rab ak murabbi xam ngeen ne ñoo bokk cosaan moo xam nag dangaa jëfandikoo murabbi bi firi toppatoo yaram wi ba mu lekk te naan te bu feebaree nga faj kooku kii def loolu murabbi lañ koy tudde bu dee ay xar la koy def ñu tudde ko murabbi al xayawaanaat wala al xinsaan wala dana murabbi ci wàllu ci wàllu jëmale jëmale xale bi murabbi murabbil awlaad dañu wax ci yar ab xale di ko yar lu dee murabbi murabbi def awlaad mooy koo xam ne kii day yar xale bi da koy yar mooy lan mooy da koy tere lépp lu bon di ko sant lépp lu baax ci kàttan ñu daal di mën a xam ne kon rabb moom moo ëmb yooyu yëpp ba pare nag boole koog ëmbaale wane gu muy wane màggug borom bi ndax doon gu mu doon rabbul alamin maanaam ci moom mbindaafoon yi yëpp te yëpp maani yëpp baat rabb la ko ëmb ñu gisa ci ne kon ndekete mboolem saraa'ir yi saraa'ir yi ndekete ah mi ngi mel mi ngi mel ne rek ndigal yi nga xam ne moom la murabbi bi di jox xale bi saraa'ir yi ñu tel lépp daf daa mat a bàyyi ndax def gi lor da cee ne te itam li ñu santaane lépp daa mat a def ndax def gi njëriñ da cee ne bu yàlla santaane julli wala koor njëriñ da caa ne bu yàlla tere naan sàngara wala mu tere lekk riba wala ay xeeti jaayin lor da caa ne te loo ci def rek lor da dal la liggéey itam liggéey yi loo ci def rek su mu waree daa di gis njëriñ yi kon rabb li tax saa borom yàlla tànn ko xamuñu ko waaye xam nañ ne lii moom ay secret la yu nekk ci baatu rab boole koog nag doon gum doon luy wane mag borom bi subhanahu wa taala ndaxte moom mooy borom mi daa fon yëpp bu ko defee li nu war a seetlu te war ko te te mel nañ ko tëb moo di ne ginnaaw fatiha dafa ñëw di tënk alquran fatiha dafa ñëw di tënk téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent yi nga xam ne mooy kaamil bi fatiha dafa ñëw di tënk yoon li nga xam ne moom la yàlla wàcce bëgg nit ñi ñëpp jaar ci ginnaaw lool lépp lay tënk kon fatiha bépp baat bu ci ñëw am na doole lool am na ahamiya lool ci la muy tegtale rawate nag li ñëw ci baat yu njëkk yi ci aay yu njëkk yi loolu mooy lan loolu mooy euh, arrahman arrahim alhamdu rabb yooyu baat yépp di baati yërmande tasrixan aw dimman kon day wone ne fatiha lépp saaru yërmande la te kon mooy maanaam kaamil bi lépp yërmande ci na te kon mooy maanaam sama borom yàlla ay santaane yi mu santaane ak tere yi mu tere ci sharia lépp yërmande ci na إن الذي وهذه الحقيقة هي ما جعلت أكثر مفردات الفاتحة وجعل الترتيب السورة كلها على هذا النحو الذي رأينا من الرحمنية التي تتجلى في كل كلمة وكل آية وكل ترتيب وتركيب. لو المعتق بواسطة لفاتها بعد بوش بعد بوش سورة من لا جنين يم من جسمه. من ما جل الرحمن الرحيم نمو نمو نيو تكرار نيار يون ديجنت بوغات سيرل من نام ني بري سيرلو نيو كو سيرلو دينا yërmande yàlla yàlla dafa tudd dafa tudde boppam arrahman tudde boppam arrahim mën na koo tudd benn yoon jàll waaye da koo andi tekk jenn laaya indiwaat koo ci mu takkaraar te foofu njaal benn euh, fatiha la te fatiha dafa tënk kaamil bi kon day wane ne baat yooyu baat yu am doole lañu ci li li yàlla di def ci kaamil bi te kon loolu mooy maanaam yàlla ko bari yërmande moo tax fatiha noonu noonu la tëdd saar wi lépp baat boo ci gis yërma nga yàlla dana ca feeñ yow mu ko xam ak yow mu ko ñàkk xam jëmmi tëralinu aaya bi itam tëralinu wu ci nekk yërma nga yàlla nga ca ba nga ko xamee ak ba nga ko xamul loolu liñ ci jële moo di sa borom yàlla am na juróom-ñeent fukki melo ak juróom-ñeent waaye melokaan melokaan yooyu yëpp melokaan wi ci ëpp doole mooy yërmande yal na nu yàlla boole ci ñi nga xam ne dana nu yërëm ci àdduna yërëm ñu ci àddina moom ñu dem ñun ñëpp jullit beeg yéefar beeg ki gëm ak ki gëmul ak ki réer ak ki xam ak góor ak jigéen ak mag ak na la mu ngoog yaa ngi xéewlu ci yërmandeen waaye yal na yàlla boole ci ñi mu yërëm ci àdduna yërëm ñu itam ci àllaaxira التقدير أن الحمد بجميع أنواعه ثابت للمولى جل جلاله وراجع إليه فلا بد عليه بالحمد لاستغراق الجن أي إن جميع أنواع الحمد ثابتة لله تعالى لكن قلنا دفن التحليل بنا وبوابنا خمنا موني ون الفاتحة لمتملة موي خمالنو أكسن برمو أنبو التوحيد به والتوحيد الذات والصفات والأسماء ولا توحيد المعرفة بالله كذنك أولا ولنك أولا من ولي خملني صابرا يلا أين لك أنا مني بري بري بري بري لك أنا مني أبدو على مؤير مني تلولو فين تبات ساري سار فاتحة فين تنسترين لا يجي يرمني يلا جوجي نبو يرمني loolu gannaaw bu mu leeree léegi mën nañoo tàmbali nag tafsir te tàmbalee ci alhamdulillah bu dee firi alhamdulillah loolu dañuy wax ne alhamdu mboolem xeeti cant yi yi ñaan yépp tax na ñeel yàlla alhamdulillah ci fatiha xabar la insha la xabar mooy dañuy xamal lëf insha mooy dafa ñëw ngir sant li mu ñuy xamal mooy lan moy mbolam xeytu cant yi yépp yàllaa ko mom ci yàlla lay dellu xeytu cant yi borom xam-xam yi nee nañu ñeent la bu jëkk bi moy hamdu qadimin li qadim cant go xamne gi yalla ko sant boppam yàlla sant na boppam ci ay barab ci alquran الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله فاطر السماوات والأرض bépp alhamdulilah boo gis suñu borom yàlla ci alquran ma nga cay sant boppam yàlla bu sante boppam jaadu na ndaxte def na lu mu mën a sante boppam boobu mooy xeetu cant gu njëkk gi nga xam ne gi yàllaa ko moom loolu ñaaroo dawal العبد إنه أواب cantug xeetu cantug ñaareel ji mooy cant goo xam ne yàlla da koo sant ab jaamam ne alhamdu mboolem xeetu cant yi ñeent ñeenti xeetu cant am yépp day dellu ci yàlla bu njëkk gi mooy sant gu yàlla sant boppam bu ñaari gi mooy cant goo xam ne yàlla ko sant ab jaamam yàlla am na ay jaam yu mu sant gërëm leen yàlla ci bool gërëm ku yàlla sant والله والله يا باهلة لجر الوت لجر الضوء لجر الصن لجر لوي جخن بجخكو لجر لوي وحن وحكو لوي دف بدفكو لوي بدفكو ما يفكر بيا لسنت يالي بي أمنكم سنت أمنكم مسنت نيونا نك أمنكم موت بك القرآن كوك نيونا أيوب ينتهي لأيوب شربك ينتهي لأيوب يالله دقيتك أيوب دقيتك أيوب دقيتك أيوب دقيتك أيوب waaw bari mbooloo lool am ay soxna ak doom yu takku am wérgu yaram lool saa yàlla nattu ko xëy jël alal jël lépp bayrutul dara ñu defe na fa lay yem doom yi yépp dee ba amatul doom soxna yépp dem ba mu def kenn xanaa natt mënta weesu loolu de ñu defe na fa lay yem yàlla ne ko tàpp feebar mu feebar mu feebar feebar di ñu jéem jéem a kenn mun ci dara ba mujj ay mbokam di ko daw ba dañoo mujj wat wasee ko yóbbu ci sën ba ba mujj yaram wi saxe yaram wi saxe fu nekk aw sax nekk fa di luuñ luuñi ndax feebar bu bon bu metti bi ak sawaay bi ci biir loolu lépp ay yóbbaa ngi jaamu yàlla ci biir loolu lépp làmmiñam dañu benn yoon ci zikrullah te borom xam-xam yi wax nañu ne yàlla natt na ay yóbba benn bu xaw metti te lii wallaay li ma wax yi doy na waaye sax yi da cee am aw sax woo xam ne dañuy lekk yi nekk ci nopp yi yi nekk ci tuñ yi nekk ci bët yi am ci nag aw sax wu ñëw ci làmmiñ wi aw sax wu ñëw ci làmmiñ wi bëgg koo lekk ñu ne yéen la ay yóbbu daf ne saa yàlla sax wii jëm ci sama làmmiñ wi bu lekkee duutuma la mën a tudd te man damaa bëggoon fu ma toll sama làmmiñ la tudd yaa rabbi seen maa dimbali sax wi jëm feneen te bàyyi ci lab yi loolu dina ñaan suñu yàlla ne ko soo ma ñaanatee loo xam ne gisuma fu ma ko bind ci sama ak yi danaa mu ngoog da nga xam mu naa noppi te fekk lu lépp yàlla da koy da koy seetlu ba xam ndax dina nangul yàlla ndax dina nangu dogalub yàlla te kontaan am day jàmbat ñenki ëllëg bu na tegee ab nattoom booy jàmbatee lu mu ko jëriñ booy ñiiñ ko lu mu koy jëriñ waaye moom mu muñ rek waaye muñ nga la ci mujj mooy yàlla fajal ko boppam ba mu wér urkub bi rijlika haada mugtasalun baridun wa sharaab mu ngoog yàlla fajal ko boppam ci ndox moomee ba mu wér delloo sul ko njabootam ya delloo sul ko alalam ba mu toll na mu toll woon ba nopp nag mu gërëm ko tagg ko ci alquran ne ni'mal abdu innahu awwaab kooku moo gañe kooku moo gën a ni'mal abdu yàlla dana ayub jaam bu baax a ngoog foofu yàlla dafay sant ab jaamam yàlla bu santee ab jaamam xanaa da koo bëgg a sant waaye ayuba la mu def du njàmbaaram de yàlla koo tawfiqal mu def loola la mu def yàlla ko ci dimbali ba mu def ko kon boog sant bu ñu sant ayubam day dësiwaat ci yàlla sant bu ñetteel gi nag mooy gan mooy sant goo xam ne ab jaam moo ko sant yàlla ni ci yonent yàlla ibrahim yeex naa am doom lool dem na ba nekk mag amul doom waaye bi demee ba nekk mag yàlla may ko ñaari soxna kenn ku nekk am doom mu ne alhamdulillah alladi wahaba li ala kibari ibrahima ismaila wa ishaq mu ne maa ngi maa ngi sant sama borom yàlla mi nga xam ne moo ma may te bi may may fekk na ma nekk mag mu may ma ñaari doom ismaila ak ishaq kooku ibrahima mooy xaritub yàlla ba ma ngay sant yàlla kon boog ab jaar ma ngay sant boroomam waaye xam ngeen ne sant googu yàllaa ko moom te itam suñu boroom yàlla du deñ xeetu sant googu du deñ mukk ci kaw suuf fekk jaam yaa ngi laxda bu nekk yàllaa ngi beesalal xéewal ay jaamam amna na ñoo xamne di gisuñu ko santuñu waaye am na ñoo xamne waxtu wu ñu ngi sant ndax waxtu wu ñu ngi ay xewal motax tax xeetu sant gogum mom du dogam sa ci ben instant ci ben lahza feet nga xamne ne rek nit ñaa ngi ci ko suuf ñëpp fay sant yàlla ba ci ki wax wax ji sax di bind sa safar yi sax ñi sant yàlla ci tawfiq bu ko yàlla tawfiqal ba mu meuna a préparer xutba bu melni di sant yàlla ci jéem gu muy ñëw di jéem a leeral dërs bi te yàlla nañ ci yàlla dimbali yàlla nañu yàlla dimbali ba nga xam ne daanu fi soogat lëf leeral jullit ñi li saa borom yàlla wax ak li sayidna muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam ñuy leeral diine gi te bañ ca yokk dara bañ ca wàññi dara loolu léegi dafa tumurànke ñuy wax ci turu diine bari nañu waaye nag wax ca yàlla tax ca la ngay wax mu jóge ci yàlla wala mu jóge ci sayidna muhammad alayhi salaatu wassalaam te doo ci dolli dara doo ci wàññi dara loolee eh, sumuranke la ni ngeen nu ñaanal suñu borom yàlla li def ci suñu dund gi lépp nu jeexal ko ci loolu te yàlla tax te yàlla nangul nu ko te noo ngi koy sant moom borom bi subhaanahu wa taala ci lii munu jot a may ñu di ko ci def kon boog sant googu mooy sant jaam gu muy sant boromam moom mooy xeet sant wu ci gën a bëri xanaa ndax su waxtu wu nekk rek jaam baa ngi ci ay xéewal waxtu wu nekk jaam baa ngi sant ah sant bu ñeenteel bi mooy jaam bu sant moroomum jaamam jaam bu sant moroomum jaamam bu fekkee ne bi masalan euh, euh, euh, sëriñ Haadi Babacar dafa defal Abdoulaye Touré teraanga Abdoulaye Touré ne ko jërëjëf sant naa la bu baax waaw teraanga jooju ko sëriñ Haadi Babacar defal moom Abdou Moussa da ko ñaari jaama santante ab jaama sant bu jaam waaye ci dugub itam ci yàlla lay dellu ndax li tax ci yàlla lay dellu mooy si laaj bi Babacar xéewal ga mu am ba man caa def teraanga ku ko jox yàlla ku dem ca xolam ba ne ko sa xéewal bii dafa jox ci ab dayu yàlla kon kay xanaa si jihaad yi day waasita day jaarukaay rek day aw yoon wu xéewalu yàlla jaar ba ñëw ci ab dayu waaye xéewal bi koo def dëgg dëgg dëgg mooy yàlla mu màgg mi moo tax ba ab jaam sante jaam it sant googa yàllaa ko moom loolu mooy maanaam xeeti cant yi ñeent yëpp tax nañ ñeel yàlla إن آية الحمد هذه بعد أن كانت إخبارا فإنها أيضا تعليم للعبد بأن عليه شكر نعم الله التي أسبغها عليه ظاهرة وباطنة bu ko defee kon loolu mooy li nekk ci alhamdulillah ci xabar لن موت نكمل في إنسان مودينا الحمد لله رب العالمين بكو يلا وخي تفاتحة شبق من بكو جان لتجلي أكل للجلي ينف من الخمنة لا يجود يلا دفن في سنتنا دفن في جيلنا ننقل سنت بفتك داجين سنت يلا يلا سنت ننقل في الحمد لله رب العالمين كن الحمد لله رب العالمين بنا يوم دفن يوم دي سنتانة دي disonya ci ñu sant yalla ndax da ko yalla no ñu nek ci ay xewalam yu fay yu fay ak yu diire mu ngok aha وهل يستطيع أي إنسان أن يتصور في ذهنه جميع النعم التي أنعمها الله عليه؟ كلا. ندخ بن جام من إيماجينا من خلاق مولم خيول يكو يالا دفن يف متيو وقت li wér mooy nit ku ne yaa wëlbati ko waxtu wu ci ay xéewal yu bare bare bare yoo xam ne yëgoo ko yaa ngi ci xéewal nit ku ne rek yaa ci ay xéewal yàlla yoo yëgut yoo yëgut tam bari lool moo gën a bari sax xéewal yàlla yi nga xam xéewal yàlla yi nga xam te xéewal yooyu nga xam lim lépp waaye li nga xam ci xéewal yàlla te mu bari ba mënoo koo lim li nga xamuta ko ëpp kon suñu borom yàlla wax na dëgg dum ne wa in tauddu nicmatallahi la tahsuha bu ngeen jéemee lim xéewal yàlla yi mu leen defal du ngeen ko mën a xam lépp kon bokk suñu borom yàlla bu ne ci al ci fatiha alhamdulillah yéen ñëpp da ngeen xam ne da ngeen a war a sant yàlla te dee leen ko sant kon bokk yow mi dégg kàddu gi deel sant yàlla loolu la maanaam maanaam ñaar la ñu di firi الثالثة مزامنة الخالق العظيم قراءة المصلي هذه الآية الكريمة مع قوله تعالى حمدني عبدي كما ورد في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فيها ربط لطيف للعبد بخالقه لعل العبد في هذه اللحظات يزداد ارتباطا وتعلقا بالله تعالى am من meneen mbir الحمد لله ci تسيت له moo xam ne ñu bare bare bari réere nañ ko ñenn ñi xam nañ ko waaye duñ ko seetlu mooy li ñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal te ma jaaroon ci ca bis bi njëkk bi may jëkk a tàmbali suñu fatiha yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne borom asamaan ak suuf daa wax ni fatiha dama ko séddale ñaari cër sama ak sama jaam te sama jaam lu ma ci laaj ma jox ko yàlla lu mu ci teg mu ne bu sàggaan jee wax alhamdulilahi rabbil alamin maa nga naan sàggaan dee nga may sant waaw mos ngeen dégg loolu yow miy julli ndekete bi nga ne alhamdulilahi rabbil alamin am na lu yàlla wax ndax wax nga wax baat boobu wax gi nga wax alhamdulilahi rabbil alamin saa borom yàlla tontu na ci lu mu ci tontoo xamidani abdi sama jaam bi sant na ma waaye yow ñu julli yaa ngi teewlu loolu waaye ah ndax ci julli sax bu ne alhamdulilahi rabbil alamin da cee jublu sant yàlla waaw da ko cee war a jublu bu fekkee yéen daaw ñu ko jublu dee leen ko jublu bu ngeen nekkee alhamdulilahi rabbil alamin ci fatiha na ngeen teewlu ne da ngeen di sant yàlla te it na ngeen teewlu waale ne ci jamono boobu am na lu yàlla wax lu aju ci seen cant googu te mooy hamidani abdi mooy sama jaam maa ngi may sant moo yow moo yow importance boo am ba yàlla di di tontu fee wax yow lu dul ab jaam bu fees dal ci bàkkaar bu fees dal ay ñekk yoo ameel yàlla te te te ca dara foo toll yàlla di lay xéewal foo toll mu lay may yow foo toll di ko moy loolu dong nga tollu woon dara ci malakuutu samaawaati wal ardi kuréel azim lépp ak juróom-ñaari milliards yi ci nekk matuñu zarra ci nguuru yàlla bi yow nag nga taxaw di julli am martaba bu toll ne boo nee alhamdulilahi rabbil alamin yàlla di ko tag dara di ko teg nga wax naa xamidani abdi loolu boo ko dee teewul ci julli dana la tekki ak sa borom yàlla dina tax nga am irtibaat goo xam ne gi day nekk sa digganteeg yàlla sa xol war naa kontaan تقول ورنا بك أها فيزيد استحضار جلاله في قلبه فيزيد الحمد وشكر نعم ربه بقدر فيبوني الحمد لله رب العالمين إن جي صفات لكنا يلا إن جي تونت نان سمم جامع لأي من ما يسمت فخل تقتك يلا يلس إن جارك أمر الله سوء أغ يلا لها يانج وح يلا يتونت لولو ميد الله سوء إن أم كونسانت كلولا أم جيك كلولا gëna teewlu màggum yàlla ci sa xol قلنا بقى تخواي بقول لي وقت الحمد لله رب العالمين آه. وعسى القدر عندئذ يموت بمزيد من محبة الله تعالى ويتلذذ بالمشاعر الربانية التي تغمر قلبه في هذه اللحظات. بقى في بلو لأمي استبخل بوشي ولو مقل يلقي. فيقول انك قوم انك تعرف دي تونس تلبي وحنا نتعرف جامع ما يسمت الله اكبر دي تقول لولو بقى يتسخل بنيه بو sa xol dina war a yëngatu ngir bëgg yàlla ngir sopp yàlla sa xol dina yëngatu ngir dem ci yàlla ngir xam ne yàlla ngi lay defal teraanga yoo xam ne wóor na la ne jomb na la ngay wax yàlla di ci àdd aha soo ko defee loolu bu amee ci xol bi dina tax nga bari yàkkamti dem julli ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daa yàkkamti julli da daa wax arixnaa biha ya bilal ma ngoog da daa yàkkamti julli lool yow itam boo mosee loolu nga teewlu wax gu yàlla di wax di àdd ci say wax nga naa alhamdulilah rabbil alamin mu naa sabab jaama nga may sant kon kay dina tax nga gën a teewlu màggam bi sa xol bi sa xol bi itam dana war a yëngatu ngir bëgg yàlla ngir sopp ko tey kat dina tax nga war a yàkkamte waxtu wu ne taxaw ci kanamu yàlla di jàng fatiha ndax yàlla di àdd ci say wax ndax loolu ay yëf di ci bàyyi ko di sotti ko ci sa xol ak sa yaram aha تحاول أن تحصي ما ينكتب على قدر عبد في هذا الموقف من الأنوار والبركات التي تجعل القلب غامرا بالسعادة والاطمئنان والاطمئنان الدائم داخل الصلاة وخارجها. مفكر بي أن جلي جلي جلي النوم. بوني الحمد لله رب العالمين. سخل جمتي سخل نيرت يلا انجلي كنت سكو عرف دي وقت اجيو نعم سمك جامل يمال سمس لو رفتح لك يولو ما دي teewlu mbaaxam gi gën koo bëgg sa xol yëngu di ci bëgg ko loolu la mu mën a sotti ci sa xol ci ay leer ak ci ay barke mënoo xalaat mukk ba xam nu mu toll lim mën sotti ci xol bi ci ay leer ak barke ak dal ak dal ak li mu ci doon ci gëm yàlla ci biir julli ak ci bëgg nekkul di julli xol bi dana am dal gëm yàlla gi day dolliku نوت على بذكر الله تطمئن القلوب فيتم فوتل فخل بينك يلا بمجمي كان غير يلا تلول تفلي خير سنجي جف اي جف لباق دلي خير سنجي جف اي اي اي جف لبن دلي خير بجنو بجي يلا دلي بجنو دينم دي ايه تحن بجي اسلام دي تحن بجي القرآن والسنة دي تحن بجي جار سيون ليا لرد تبايلين يوني نسيب لين day tax adduna li ci biiram lépp bu doon ay milliards boo ko dendale xéewlu taxaw di wax alhamdulilah rabbil alamin yàlla di ci addu nga xam ne milliards yooyu ëppënd dong la buy naaw te da ngay dee ba ko fi li gën a am solo milliards yi ci adduna gën a am solo immobilier ak wote yi gën a am solo lépp moo di ngay wax yàlla di ci addu ba yàlla ubbi sa xol def sa bëgg yàlla دفت جيت دفت wóolu yàlla daf ca gëm yàlla dana ci sotti ci ay leeri ci barke loo xam ne kenn mënu laa wax nu muy toll aha loolu mooy maanaam inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar ndax bëgg yàlla gi nga bëgg yàlla bëgg gi nga bëgg diine sa borom yàlla ji te loolu mu ngi la bàyyeekoo ci leer gi sotti ko ci sa xol jamono yi ngay teewlu màggu yàlla ndax wax gu muy wax xamidani rabb abdi loolu la ngay bàyyi ko ci ay barke moom mooy tax nga bëgg diine mooy tax lépp lu yàlla tere nga di ko daw mooy tax lu yàlla santaane nga si góorgóorlu sa tam kàttan yal nañu yàlla defal loolu yal nañu yàlla mosal ci leer googu yal nañu yàlla mosal bànneexu julli aha te lii ma wax lu tuuti la ci ay leer yi nga xam ne mooy wàcc ci xolub jullit bi jamono yi ñuy julli te teewlu yàlla gi teewlu addu gu muy addu ci jullam bi loolu li ma wax ni lu tuuti la ci leer yi nga xam ne mooy sotti ko ci xol bi ak barke bi nga xam ne moo ciy sotti waaye nag barke yooyu ak leer yooyu kat am nañu ko dul am am nañu julli ba seen mënta duñ ko am dara ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne bu ñuy julli seen xel bi nekk ci julli gi ndaal ci nekk duñ ci nekk dina néew lool koo xam ne si da ngaa kàbbar bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin sa xel yow alhamdulilah rabbil alamin xamoo ko xamoo ko mais war naa leen jullikat yi ñeent lañu kii julli te la muy wax xamu ak kii julli te la muy wax xam na ko waaye xel mi nekku ci xel maa ngi wëndeelu ci àdduna nga xel moom faaw nga jihaad ak moom faaw nga xeex ak moom muy toog ci julli ji ak di dem ak ñëw ngay téye bu fekkee ne bi ne yow da ngaa sàggan bàyyi xel mi muy taxawaalu kon kay Moussa borom lewe day wax xam ni dañuy ab gi yow doo ko yëg doo ko teewlu xol bi dara dara nekku ci adduna rek ci ne xol bi dara du ci soppiku ci leer yal nañu yàlla musul ci loolu yal nañu yàlla boole ci jaam ñi nga xam ne dafa leen a wasafal ci alquran ne hum fi salaatihim xaashi'uun bu ñuy julli dañuy toroxlul yàlla di taatan seeni xol ak seeni xel leeri julli di ci jolli di ci di ci soppeeku yal nañu ci yàlla boole ñi nga xam ne sama borom daal leen a wasafal ne alladina hum ala salatihim daimun ñoom ñu nga sax dakk ci seen julli kenn yàlla boole ci ñooñee yal na yàlla dox suñu diggante ak alquran kon doog nu yemale foofu tafsir bi ci alhamdulilahi ñaan yàlla tawfiqal nu àggale ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bari bakkaar la ku bari tooñ la yàlla jéggal nu te may nu mujj rafet te bu àllaaxira nu fekk sa ngërëm te bañ saa fekk leneen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu